nitu dëgg yi damaa bëgg maanaam man je tire vers la perfection damaa bëgg ñu xàmmee nitu dëgg yi damaa bëgg ñu jéem a fexe nekk ay nitu dëgg ñun man damaa am problème mu nekk nitu dëgg man. d'accord mais mais même. est dégg fu ma lay waxee. maa maa ngi dégg. Euh, Karim dafa am benn émission boo fi ñëwoon. Mm-hmm. Euh, ma wax la ne la est-ce que état. Mm-hmm. est-ce que l'état n'a pas ses réalités. Mhm. c'est-à-dire fi ma bëgg ñëw moom mooy Karim euh, euh, ci bi euh, Ousmane Sonko àndee ak Pastef mhm. di xeex mhm. da bokkoon ci ñiy défendre Ousmane Sonko ak projet bi tey man comme l'impression que déjà gis naa ni sama gis-gis man àndatoo ak Ousmane Sonko ci peut-être gëm-gëm comme ni nga koy waxee. Mhm. boo toogee ci euh, débat euh, télévisé yi. Mhm. Karim bi nga xam ne moom lañ gisoon muy défendre Ousmane Sonko ak projet bi. Mhm. ak Karim bi ñu gis tey ñun bokkul qu'est-ce qui a changé entre temps. waaw mais Karim doon faral Ousmane Sonko démb. tey faralatul Ousmane Sonko. non c'est comprendre mooy man mënuma mënuma man mënuma contre Ousmane Sonko. contre ma Ousmane Sonko. contre ma contre ma Pastef moom laa a marre maa la wax a man contre ma kenn contre ma kenn ànduma kenn xam nga lu ma àndal. Mm. sama samay principe xam nga dama ne damaa xam fan laa ne. Mm-hmm. xam fi ma jëm. Mm-hmm. mu leer ma dama xam ne may xeex mu leer naa ci sama bopp. Mm-hmm. c'est loolu kese la. Ousmane Sonko nit la boo xam ne dañ koo topp di ko tooñ di ko tam nañ ko dëmm. tam ko indien tam ko malaaka tam ko lu ne. jiñ ko viol yàq daram ndax politique. benn bépp xeetu ñaawteef bu xew ci at bu xam ne am na si àdduna jiñ nañ ko Ousmane mais sa waay ma ne la yow li su fekkee da ngaa gis bu dee yow nit nga rek waxuma la sax nga nekk activiste de ñu jàpp benn waay parce que politique moo tax ñu bëgg ku tuut ne dañuy dagg boppam tey na dee parce que nangam parce que nangam nga xam ni kii nii politique kese moo tax ñu bëgg ko def ni mais boo gisee ñaar ñaar ñuy jàppante nga gis kenn koy tooñ te surtout kii tooñ moo ëpp doole te kii tooñ am def am nga pas de responsabilité parce que fa ko fa teg Macky a marre dañ defoon doggal yi donc kon man sama responsabilité la man ma taxaw défendre Ousmane Sonko ndax man maa fal Macky Sall te xam naa ne day tooñ Ousmane Sonko sama responsabilité la man Ousmane Sonko dafa jël ay engagement ak le peuple sénégalais ay engagement man damaa toog Ousmane Sonko toog ma yor samay question yu ma ñor di ko xeex bien avant moom muy ñëw ca ba may xeex ak Abdoulaye Wade mu may dëj ma yor ko di ko xeex di ci dox ba ma nekkee ca rab dëggantaan ci loolu laa principe yooyu laa doon dox mhm. ñun ñun Thomas Sankara moo ñu jàng révolution mhm. Thomas Sankara mooy suñu professeur ñun ñëpp ñun

te nekkul si yoon woowu. tuuti dama wax tey Ousmane taxaw na fii ne la CEDEAO la CEDEAO nekk qu'un syndicat des présidents marionnettes de la France Ousmane Sonko wax na ko. vidéo yaa ngi fi de ñun ñëpp xam nañ CEDEAO nu mu demee. keroog bi te loolu mu nekk dëgg bu wér. keroog bi bi Macky Sall reporté élection yi El Mballo lu mu lan la nekk ci CEDEAO dafa daw di ko félicité. dafa daw ñëw di féliciter di féliciter euh, euh, président Macky Sall ci reportu élection présidentielle. Mm-hmm. Mm-hmm. lu toll ni élection calendrier républicain nga jalgal ko jalgal bu toll def ko report reporté ko toog rek mel ni kuy changer palaatu ceeb naan moom dama ko ajandi yooyu mais mu koy féliciter. Mm-hmm. donc kon ñun xam nañu la CEDEAO ils ont tout fait pour éliminer Ousmane Sonko ak projet bi sénégalais yi amoon. loolu ku ne xam nga ko xam nga ko loolu bi waa euh, sama frère yi sunu sunu frère la non frère non confrère sous région bi la euh, Niger et tout ñu bëgg leen dugalaat ci biir CEDEAO bi naan dañuy dox pour démarche pour ñooñu nekkaat ci CEDEAO bi qu'est-ce qui s'est passé entre temps parce que ñun xam nañu CEDEAO du ñoom pays africains yi fa nekk contrôlé wuñu ko. fa laay dugalaat sama wax bi ma ne woon est-ce que l'État n'a pas ses réalités c'est-à-dire euh, bi nga fi ñëwee dama ne la. Euh, ñun ci Ablaye Wade la ñu fekkee lu ñu lu lu ñu mën a nettali. Mhm. maanaam euh, ku ci ñëw nekk opposant euh, da ngay séduire Sénégalais ci sa programme ci yéene bi nga am ci Sénégal. Mhm. mais une fois nga yéeg bi cest les choses changent. changent ci saa non non nga moom xam nga sànq xam nga sànq dafa wax moo la dugal dama ne la ñun dama ne la ñun Thomas Sankara moo ñu jàng révolution Thomas Sankara dafa ñëw ne Burkina Faso dañ koy soppi le pays des intègres. ngi sol seen yére. ñuy def consommer local. Mm. di bay di dundee mhm. muy jël oto yu cher yi luxe yi dindi luxe bi yëpp jël oto yu simple kuy voyager amul ay première classe deuxième classe bu njëkkee yegg la lay wax keroog mooy dugg ci terre bi femme bi nag man euh, ban ngay jël da jël première classe wala deuxième ma ne ko bu ci njëkkee yegg en réalité trois cent grammes moo moo indi yooyu moo moo def yooyu suñu bopp xoola ñëw wàññi train de vie wu état bi di dawal vélo mhm. trois cent grammes bi mu deewee compte am cent cinquante mille lañ ci fekk bi ñu toppee trace yi salaire am la xam am te daf ko moo tax ñu rey ko. bu ko réussir woon tubaab yi dañu ko rey de. dañuy croiser rawa bàyyi ko muy torox. mais daf ko réussir mooy en quatre ans mu def autosuffisance alimentaire bu Burkina Faso. consommer local wàcc ci mbedd bi di def ay set setal dox di nit ñi bëgg ko seen xol mu def mu def fa lu mu def liggéey bu la mu bàyyi woon Burkina Faso ba tey moo nekk Burkina Faso. ñun loolu dañ ko yàgg xeex gëm ko gëm ni Afrique mën na ci génn sans les occidentaux mm-hmm. dañ ko gëm ñun dañoo loolu Ousmane Sonko ñëw nag fekk ñu yor sunu yenu mu diis tool mu ñëw ne jox leen ma ko ñu jox ko mu yenu yenu bi diis ñu gis ni kii kan ndeysaan suñu jàppale ko yenu bi ànd ak moom di dem ñu ñu fekk suñu si ne moom lii la gëm nañu def ñuy génn ci franc CFA Sénégal dafa war a génn franc CFA moo ko wax du samay wax nañu euh, armée française dañu war a jóge fii loolu waaye ñu yàgg nañ ko jooy panafricanisme France dégage bi nga xam ni Guy Marius Sagna bi muy créé France dégage maa ngi toog ñu ñoo ko créé ndoo tax France dégage dem ba nekk mouvement moom ndax ñun ñëpp ñoo si nekkoon ay euh, urbain panafricanisme tey jabaru Cheikh Niass bi nii. Euh, euh, Babel moom bokkoon na si membre fondateur u France Dégage. ak man ak moom ak ñoom Adja Samir Seck ak ak ñeneen ak ñeneen ay ñoom benn talab ak ñun ñëpp c'est-à-dire pour wax la ni ñun dañoo yàgg xeex te boobu ñoom ñii ñëwaguñu. donc alors bu ñu demee ba ñu dem ba gis ni ñun la waxoon ñun di ko xeex moom mu ñëw yanu ko ñu ànd ak moom yanu lekk ko jox ko ko di ko toppatoo di ko taxaw parce que xam nañu li mu yanu dafa diis ñu bëgg ko éliminer ñu taxaw ñun sacrifier suñu bopp pour Sénégal bu ñu demee ba ni wax woowu wax ya waxi sëñ Abdou Lahad nee na say waxi démb dafa doon méngoo say jëfi tey mais bu ñu gis ne ay waxi démb méngoo la jëfi teyam waaye waaye lu ñuy tee ñu wax ko lu ñu tee ñu wax man léegi nii daanaka boo xoolee su may añi nii léegi daanaka ceeb bu weex bu baax laay lekk du dërëmu kenn lu may tee wax sama xalaat gis gisuma ko donc alors man gisuma loolu moo tax ñu taxaw ne mais attends stop qu'est-ce qui s'est passé entre temps parce que lépp lu mu waxoon méngoo ak li muy jëf mm-hmm. parce que man gis armée française lan lay def Sénégal ba léegi damaa bëgg nga xam ne ñaari junni yii fekk yaa ngi koy gis xamal ne ñii liggéeyu ñu xaaju ñuy bay waaj a liggéey te ñun ñoo la ko gën a xam souveraineté monétaire bu souveraineté monétaire bu amul mooy yow nekkoo sax ca yoon wa yow. pour ñu am suñu xaalisu bopp. mais boo ko amul fooy liggéey. mais est-ce que loolu teelul tamit. teel mooy lan. deux mois trois mois. non mais. dañuy door a falu xala man on parle pas de xëy na lépp mënta nekk en un seul coup. mais démarche yi laay wax quoi. xam nga ñuy màggali yàgg dem Touba ñu xam Touba ñun ndax ñun dañoo yàgg ci révolution bi ñun. Mm-hmm. ñun dañu dem Touba ñun. Mm-hmm. yow nga ni yaay safar bi nga xam naa Touba mën naa dem yoonu Touba wax tubaab ne oto bu baax laa ok ñu ñëw jox toog ànd ak yow jox la oto bi ma jox la oto ñu jox la lépp ali ma toog ñu toog jox la suñuy pass toog ci oto bi di dem Touba nga bàyyi mhm. a ci noo dama dafa bàyyi la ma rek ma dawal xam naa fi dem mais bu ñu la mayee benn fan gis ni yow jëmoo yoon Touba bu ndootul màggal bi ci yoon la ñuy fekk de léegi bu ñu nekkul ci oto bi nag di yuuxu di fëgg ma ni Touba lañ jëm xëy sax ana kenn ku doon romb sax jëm Touba ne sa waaye eh, yéen fi ngeen jëm ñii du moo tax wax daa baax ñun ay activiste lañ xam nga bari wax activiste rek la jig mm-hmm. activiste daa war a wax ñun dañoo ay lanceur d'alerte lañ man mënuma xeex ba ñoom ñu jot pouvoir bi man dama leen di xeex à trois mois de de pouvoir cent jours loolu mënul nekk loolu yi fi lof la xam lu may def man may fexe ba di leen ñu leen xamal ni maanaam ñun ñii faale wuñ leen ñii di yuuxu ñun lijjanti wuñ leen yéen lépp lu ñu gis dañ leen koy wax yéen da ngeen am soxla ndax réew mi ñun ñoo leen mm-hmm. leen ni ñun amul lu ñu ragal la Macky Sall dajoon lu ko raw mu ngeen ko daj te billaahi alima boo demoon tey samay vidéo yu ma doon def bien avant chaque jour dama doon wax loolu dinañ xeex ba jox leen pouvoir bi te bu su leen ko joxee niñ defoon Macky Sall ngeen defee ci loolu yoon lu ko raw la def liñ daan yàq Macky Sall lu ko raw la ñuy nga ne nga ne nga ne wax dafa baax. Mhm. cest à pour ñuy fàttali. waaw est ne ko loolu moo tax Ousmane Sonko di.